xelo hello asalaamaaleykum rahmatullah mbokk internet yi yu seen football TV yi nekk Insta yi nekk TikTok ak fii sur YouTube. mbokk yi dama leen defal débrief match euh, bu City xam nga donc bi xam dañu jàmmaarloo fële ci Bernabeu ak Real Madrid mu nekk benn match bu xamante ne 1-1 la gis nañu qualité de jeu bu bu bu baax a baax baax li ñu mën li ñu nemmeeku rek mooy que par rapport ak daaw changement am na boo xoolee daaw Fernandinho dafa joué côté City Mahrez match retour moo tax may wax bi ñu joué Bernabeu yaa y'avait kii Jesus xam nga donc Sterling donc football total possession damay attaqué xam nga donc daaw danger la woon pour ñoom parce que xam nañ ne Vinicius moo ngi fa ak Rodrigo cette année on a vu que Guardiola tactiquement tay dafa taxaw di déglu même si nak dès les 20 premières minutes bo xolé ñoy yor bal même si am ñay occasion yu grave am nañ ben tir suñu waji ji que euh, ki di Courtois xam donc à euh, noter un très bon match de Rudiger pour man c'est l'homme du match parce que bo en 90 minutes dafa nëbb jënt bi carrément qui di alan je pense que football à l'ancienne le andi euh, marquage à la culotte faut dugg ma dugg faut dugg ma dugg xam donc euh, ma gis ne intervention bi danaka da ko gagné ay duel yëpp donc euh, en terme d'interception ça waa Real ñu appelé mais en terme de duel gagné ma ngi xol ni statistique waa City ñoo waa City ñoo gagné parce que deuxième ballon yi quoi wa Real parce que ñu bëgg sortir par de derrière mais à chaque fois gars yi pressing pressing bu pas parfois ils sont obligés ben Rudiger day dégager ben Courtois day dégager donc deuxième ballon yi c'était normal que wa City jël que donc City nous avons am tactiquement parlant City tu vois que nous jouons avec des pistons même euh, du côté de première ligue tu vois peut-être que ben Walker des nga mais voilà on, on a l'impression qu'on a des milieux de terrain et trois défenseurs xam donc ben équipe bu xamante nak nag xam ni ñii dégo mais le lien day man je trouve que le lien entre Haaland et et et et Cruz tey gars yi nañ kan ah, ce lien là xam donc euh, entre bon maanaam Kroos De Bruyne entre De Bruyne et et et gars duñ ko dagg carrément j'ai bien aimé. Euh, relation Kroos avec Moudris, même si en deuxième période dañu émoussé nous sommes carrément à un moment donné man Bibi qui est naa parce que dama ne Kroos mii sonn parce que xamul similaire similé avant noonu def avant que Camavinga def erreur bi mais en première période nous avons may wax vingt minutes City Mokini mais sans am occasion bu concret maintenant que Real nous bi mu temps forum, comme ni le Real Madrid c'est le c'est le Real Madrid c'est la Maison Blanche et man li ma sur la qualité technique bi Rodrigo Benzema ak keneen kii Vinicius dem nañu ñoo défense bu euh, bu City franchement la qualité technique de Karim Benzema c'est à noter quoi remise texte, orienté duré. Nous ñu jox brésiliens que ce soit Rodrigo que ce soit Vinicius que je trouve maintenant très intelligent am na action pour mu retirer, noonu en première période avant que Bibi bi ñëw et Kamavinga, en première période irréprochable parce que pour il faut que carrément euh, Silva xam Bernardo Silva carrément te ku Bernardo Silva bu un contre un bon un kaas mon a passe na fële. donc sur les ailes je pense que waa City foofu la ñu jouer et que Real dañoo def benn bloc boo xamante ne benn benn Carvajal benn Camavinga ils étaient très haut accompagné de Modric à Kourous. donc euh, ak ak Valverde bi moi je def la c'est le gars bi xam day courir partout moi am deux poumons quoi donc mu équipe qualité de jeu tactiquement parlant c'est deux coachs de très haut niveau en première période 1-0 pour Real je pense que c'est assez mérité dans le jeu fin match au match deuxième mi-temps on a vu le Real qui a carrément double deuxième bi boo le temps fort yi a am moment bi ñu encaissé c'est erreur erreur erreur de de compréhension parce que entre l'erreur de course que je trouve que c'est une erreur amna ñu ko xam du né erreur la moy action bobu parce que dama gis né dafa mettre ñep taxaw di xaar coup franc lu coup franc gars jouer joué. Kamavinga bal bi fi mu ko duggal nonu en si c'était Modric si c'était ben course ce sera pas un problème parce que techniquement parlant c'est des milieux de terrain dañuy orienté bal bi rek jàkkaarloog terrain bi mais ki nga passé un délier il a passé amul euh, réflexe milieu terrain du coup perte de balle seul problème moy que ñu sommes nekk demi finale de Ligue des Champions. Euh, pour man Rodrigo maa ngi saa marché maa ngi Rodrigo du dem marqué kii di euh, De Bruyne parce que De Bruyne fi mu nekk noonu euh, boo xoolee joueurs yi Real milieu terrain yi ñoom ñëpp a ngi fële ngi doon y avait Rodrigo bii xamante ne moo naka gêné si tiiram parce que saa gars yooyu boo leen Kroos kii De boo ko mayee yow mais da koy ñett ci camp yi da ko si ñett mais gardien du gis dara 1 waa Real après yor temps fort am nañu fi benn occasion de Karim Benzema Euh, dans l'ensemble réel on a gagné parce qu'on n'a rien vu de de de de de de Haaland euh, bi monstre bi voilà défense bi j'ai trouvé trouvé Rodrigo très bon franchement si une intervention si top bu franchement il bal yu bëri moo ko génne donc euh, franchement Camavinga en première période c'était pas mal en deuxième période voilà donc pour moi, on pouvait avoir mieux concernant l'attaque du Real parce que je naa carrément. que ça soit Walker que ça soit sur le côté Rodrigo moo man sawaay